Esselamu Aleyküm. Bokkiyifidagi noo ngi leen di nuyu waaye di jiital nuyoo ci Sëriñ Babacar Sy Al di ci teg kilifa yi fi teew yépp fa tabarakallahu ci wàllu diine ak ci wàllu àdduna di leen masawu coono xitam léeg nit nuyu ma ni man bày yaa ngi noppalu ma ni mukk waaw boo ko séentoo ci àdduna rekk nax sa bopp noflaay parce que taxul yàlla indi fi aadam moo juum ci aljanna tooñul dafa juum waaye mu jéggalu ñu jéggal ko condition na njéggal wax ko ni ko fokk nga dem en exil foo xamul kenn xamoo fa kenn mu nangu ko moo tax boo séentoo noflaay tooñ sa bopp tabaarakallahu ñuy sant ñi nga xam ni gannaaw borom bi ñoo rafetal bés bi rafetal guddi gi rafetal daje bi muy ñi khalifa ñang don lim kenn ku ne participation ngir feddali kóllëre sa digënté ak Serigne Abdoul Aziz Al amir xeyna boko boo sax di nga ni gudd ñi mulim waye lu ci nek dafa am particularité bopam ndax jamono amoon na sëñ Babacar si nek fi am ñu daan indi seen addiya amoon ci mbokk mo xamni xorom rek la daan indi comme addiya ba am ñu koy sikk di wax ni waaye mi ngi bëgg a rey nit ñi xorom rek lay indi sëñ Babacar Sy ni bu fi amul woon ñu wuti ko mu ni bu kenn xeebal kenn hadiyam ñu daja fi nag tudd gàmmu tuddu daayira yitam daayira bi mës wax ni keroog bi nu wutlo serigne Babacar si tur serigne abdou wax ko ko ni dañu ko formé ci bir kër gi mom serigne Babacar mu wax ndia ah, daayira yépp day neex nañu ma muni way bi juddo ci bir keur gi nak wax deug yàlla neex na ma lol joxe tour joxe al abrar inna al abraar la fi naim mu di daayira bu am histoire défendre ko pour défendre une cause, la moyenne des choses, c'est de connaître son histoire. Cause bo xamul histoire Beaucoup boo défendre mu jaaxal la Way fekk na li ñu sedd daayira bi tuddé ko gamu. Gamu daara ci biir kër gi gàmm gi nu fi njëkk def te ñi ko def ñépp génn ci biir kër gi ëtt bële ci gannaaw booba kenn tabaxagul bâtiment bi ci kër gi ëtt ba féete kër soxna umm fa lañu tàntoon ñaari basangi barax gàmmu ga ku ko doon woy sëriñ Moustapha Sy Jamil Cheikh Diop njooba ak Alaaji Mbay dëgg ñoo doon woy gàmmu ga xaaji tafsir mbóoj di firi ah muy dox ba tey ñu koy célébrer ci biir biiri bâtiment en dur kàttanu borom bi lu yokkuwul wàññeeku waaye ba tey ñu tuddu gàmmu gàmmu gi sëriñ Babacar si njëkk présidé ndar la ko fekk doomu ndar yi dañu amoon ay groupe yu daan waaye gàmmu ga itam dañu daan natt kenn ko ne laaj la natt euh, ba seen xel dem ci sëñ Babacar Si wax ni doomu ndar la nit ñoo kon war na bu nuy gàmmu war nañ ko ko mën a yëgal ndeke booba li taxoon ñu bëgg mu ñëw ca gàmmu ga piège la woon ndax dañu bëggoon seet ndax am na xam-xam walla amul xam-xam ndax ni mu daan sañse moom sëñ Babacar ku fonkoon col la waaw euh, mësul nangu xuus mbooloo bi mu nekkee ndar dafa daan wut ku mu yen téere ya muy jànge mu yóbbu ko fa muy jànge moom mu seet fu mu jaar fu ko kenn dul gis ba fekk fa téere ya nekk mais bi ñu bëggee seet ndax am na xam-xam ñu ni seen gàmmu gi ñuy organiser nañ dem laaj ko nattam ñu ñëw ci moom yëgal ko gàmmu gi mu rafetlu ko ñu laaj ko cotisation mu yëkkati jox leen ñu lancé ko une invitation ni ko bëgg nañu nga ñëw ci gàmm ko mu ne d'accord naa ci ñu ni ko bunu nu sañoo nit boo ñëwee dinga jël kàddu ah mu ni foofu nag foog ma chartoo ko yéen mooy bu ngeen bëggee ma jël kàddu mën naa jël kàddu 9 heures ba 6 heures du matin kenn du ma interrompre booba ndar bu ñuy gàmmu am na yeneen kilifa parce que ndar dafa yàgg am ay intellectuel ci làng arabe waaw ñoo xam ni lu ne xam ne lañu daan bind di ci tagg yonent bi moom lañu daan firee gàmmu yi keroog ba sëñ Babacar si demee ca seen gàmmu ga ci la ñu njëkk a dégg lu Cheikh Al Hadj Malick taalif

jéggalu ak it ndokkeel ndax li ñu defoon yépp dañu foogoon ni Babacar Sañse rek la fi nekk fa tabaarakallaahu gàmmu yi di law di law di law di law ba tabaarakallaahu kenn ku nekk tudd gàmmu waaye li tax mu mu yomba layal gàmmu parce que kiñ ko tuddee tax مدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترانغ بوكو تودي ميريتن بوكو أب مي وحني شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه دفا وخوني مانغي سنت يالا بيغا خاميني يبلول يوننتي تي نيون واتيوول تيري تي نيون mu ni ndax li tax yàlla daan yebal yonent ak di wàcce téere mooy xeet yu seen jikko yàqu xeet bu seen jikko te yàlla bëggul ñu alku mu yónni yonent pour redresser situation bi tegaat leen ci kaw yoon Cheikh wax ni sunu jamono bi bu nekkoon jamono boo xam ni yonent dafa war a ñëw téere jóge ci kaw asamaan nee na yàlla dana nu yekk lu mel ni ndax sunu jikko ni mu delloo gannaaw te boo ko seetloo gis ko waaw jikko yu dellu gannaaw parce que kenn ku nag li papa ay da wax léegi inna allah la yuxayir ma bi qawmin xatta yuxayiru ma bi anfusihim waaw yàlla dafa wax ni jikko bu la neexul ci sa bopp nga ni ko dimbale ma ma tàqalikook moom yàlla benn condition rek la lay wax mooy naa yëg ni volonté changement ngi ci yow ma door a ñëw bu volonté changement nekkul ci yow doo ko dégg doo ko gis parce que kenn du ko tardeel Cheikh El Hadj radiallahu taala anhu wax ni li gën a yitteel yàlla ci digganteem ak jaamam nee na mooy julli waaw nee na julli sañuloo ko may kenn sañuloo ko yéene kenn lu dul boroom bi ñu ni kon yéene ci biir julli mooy ruuxu julli waaye ñu ne nan la ko nit ñiy defee parce que kenn talatul teewlu waaw bari na ku la nit teewlu na te teewluwul parce que ni seen xel di rëcce te mënuñu ko ndar kepp waaw mu lay won ni euh, euh, euh, tudd nañu rek ni ñi nga ci yéene ba waaye la ca des bari na te yàlla boo ko ko yéenewul mu bàll sa julli waaw xam nga ma jóg julli ba génn ci yàlla ni jëlal soxlawu ko parce que taloo ko boo ko talul rek mu bàyyi la ak julli gi waaw ba ci ba ci jàmmu jàmmu jàmmu yàlla yàlla boo ko lan moo la gën a neex ci sa ci ci sa jaam mu ni la la soumission totale sujut. mu ni bu ma ci gën a neex nag mooy ngay sujjóot sa njaboot gu ndaw seede ko xam ni seen baay am na ko mu yaakaar te mooy borom bi boo ko ko yéenewul rekk mu bal la ko waaw moo tax mag ñi lu seen xel mësaan di wëndeelu wëndeelu wëndeelu bu ñu taxawee ba yëkkati seen ñaari loxo xam ne ñi ngi jàkkaarloog boroom mi ngi déglu li nu ko yéene loo leen fa def ci lu metti duñ ko yéen waaw te léeg ñu nettali la ni la am na ay nit yàlla yoo xam ni dañu daan am lu metti lu leen dal mais pour faj leen bala ñu leen di mën a faj dañuy bàyyi ba ñu kàbbar bu ñu dee lakk seen play sax duñ ko yëg ndax ni nuy joxe borom bi seen bopp الشيخ Haj Malik رضي الله تعالى عنه jomam ci digganteem ak boroomam moom rek moo taxaw ni mën naa alquran ni mësuma def lu metti borom bi bu ko neexee nag mu yóbbu ma safara waaw mu ne waaye mën naa waat ni mësuma def lu ko metti lu mu diglewul ngir xam li mu sédd borom bi nu mu toll parce que yàlla bañul bañul ku yëg sa bopp ci moom waaw la mu la sant yépp def nga ko bu ko defee euh, kër gi dafa doon këru leer fa tabaarakallaahu mi gis nga nitu yàlla lu ne yomb na ko ba mu des mu may leer ki ko soxlawul te leer boo ko soxlaa dafa am noo koy wute xam nga Cheikh El Hadj Malick dafa waxoon ni bu ma ubbee buntu tarbiya rek ñépp dem safar mu ne donc naa tëj buntu tarbiya te ubbi buntu mbokk mu ne koo gis sa mbokk mais dafa am ku ko rejeté ku wax ni soxlawuma buntu mbokk muy Sidi Ahmed Si Malick mu ni son baay yaa fusiyee tax mu ubbi bunt mbokk waaye moom nee na bunt tarbiya moo ko intéressé te mooy mu am leer boo ko bëggee dafa am noo koy wute moo tax bu nit ñi daan bay ci toolu Cheikh El Hadj ba wàcc jot ñépp wàcc Sidi Ahmed daawul wàcc wallaahi daawul wàcc mukk ngir Rek xam li mu bëgg fa mu koy wute waaw Tiwaawan fa fa pour qui pour celui qui en a besoin boo ko soxlawul yàlla du la ko jox parce que yàlla xam na kiy caaxaan ak ki dul caaxaan waaw mën nga wut nag loo sëlëme bëtu nit ñi nga ko wut eh, ma wax ni ci buntu leer boobu charte bi ci njëkk ci kër gi moo di xam-xam waaw xam nga <laughs> papa Aïda dafa wax léegi ni seen copain la je je suis plus que leur copain je suis leur complice waaw loolu la yàlla dogal xam nga sëñ Cheikh Tidiane si daf ma daan reeloo parce que booy lim sëriñ si kenn ku ne dana la wax la mu seq mais waxtu wu de sëñ Saliou Mbacke da ngay dégg mu ne ah c'est mon copain waaw ndax dañu yàgg ñoom ñaar sëñ Saliou daf ko daan invité got ni ko nga noppalu fa kenn du la déranger kenn du la yàlla defoon seen diggante mais comme leeru xam-xam moom la Cheikh El malik Malick njëkk njëkk tudd sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu dafa nekk rek ndaw toll ci wut xam-xam benn xarit la ci amoon te kooka nekk bàyyi ci moom muy Mama Samba Mbakke waaw di frère Cheikh Ahmed Bamba radiallahu taala anhu maam maam Masamba dafa soppoon sëñ Babacar Sy def ko doomi boppam ndax li mu bëgg xam-xam daan nañu toog toute une journée ci mushaara lañ daan yenn waaw parce que dafa déggoon arab waaw sëñ Cheikh wax na ma ni maam Masamba ak sëriñ Bachiru Mbàkke mu ni ma gisuma ku leen gën a dégg arab ci àdduna te wax na dëgg parce que mu nga ak téere yoo xam ne ñoom ñoo ko taalif euh, loolu kër gi xam ko maa ngi koy nettali Cheikh Ahmed Tidiane Mansour ma ni ko sa papa sëñ Mansour ak sëñ sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si Maktoum xam nga bu nu mësaan xëy pour dem jël leçon Tiwaawoon dafa bari woon ay buntu kër yoo xam ni buntu kër bu ne ak la ngay jàngale nekkoon na université boo xam ni kër goo faculté la sëñ Mansour ak sëñ Cheikh bu nu xëyee suba dañuy topp buntu kër yi buntu kër bu ne ñu dugg fa am fa bu nu jullee tàkkusaan ba noppi ñu ñëw ci kanamu sëñ Babacar si pour def synthèse ba sëñ Babacar di leen wax ni doom li tax ma di leen sonnal mooy doomu soxna bu amul xam-xam moo golo gu mënula yéeg a yem parce que lu leen bett ci biir moroom yépp yéeg moom mi mënula yéeg moom lañ fay fekk sacrifié ko mu leen moo tax ma leen ciy sonnal may wax Cheikh Tidiane ma ni ko sa pap sëñ Mansour daf ma daan wax ni nii may waxe ca kaw ak fitna ji may waxe ni ma daan jànge sama leçon ci kanamu sëñ kër Sy la waaw mais yooyu yëpp bi wàllu xam-xamu téere wéyee mu des xam-xamu leer mu di baatinu tariqa bi baatinu tariqa sëñ Babacar Si doom yi mu am yëpp moo leen may werd moo leen jox salaatul fatih mais man joxuma ko parce que daf ma sédde woon sëñ Cheikh waxtu bu ko soxna si ne jox ko tarixa bi mu ni ko dafa am ku ma ko sédde bu jotee dina ko ko jox maa ngi ko jël ci juróom-ñetti fanu sëñ Babacar ci suuf la ma ko sëñ Cheikh jox jox ma en même temps lépp luy awraat ci biir tariqa bi mais mu wax ma ni ma bu la soxla taxa fanaan ci kurus bu la soxla taxa fanaan ci der boo ko defee tuumaal sëñ Babacar wax ko li nga bëgg rekk jox ko àddiyaam mu def ko mais lui aura ci tariqa bi jox na ma ci ndigal waaw euh, loolu mu ni côté culture confrérie bi la parce que cher le fondateur de la confrérie euh, wilaayam de xaw nëbb intellectuel gi mu nekkoon cheikh lu ne xam na ko lu ne jàng na ko waaw moom boroom tariqa bi mais pour mu ber tarixam condition yi mu pose yonent bi yonent bi nangul ko ko moo tax mu nangu ber tarixam sinon wax na yonent bi ni ko yëg naa ni yor naa cër yu dul jeex waaw li ma yor ci cër xam naa nu mu toll léegi nag da bëgg ma ber sama tarixa bopp parce que yonent bi daf ko wax ni ku sañoon sa dooma lay doon te yow yaay sama doom Cheikh Haj Malick wax na ko euh, condition ya ko cheikh wax yonent bi jël ci garanti ah te mooy mu wax ko ni ko da wax naa ber sama tariqa mu ni ko waaw mu ne ko acceptel ma ñetti condition mu ne ko ban ak ban mu ni ko bu njëkk bi ku jël sama tariqa te muy dëgg ci yow bis bu malaaka mi ñëw di jël sa ruux na la fekk ci iman fekk la ci isla bu mat sëkk yant bi ni ko d'accord naa ci mu ni ko deuxièmement ku jël sama parixa te muy dëgg ci yow bu la kenn gëdd ba nga tiit yant bi ni ko d'accord naa ci mu ne ko ku jël sama parixa te muy dëgg ci yow bu ëllëgee foo taxaw mu taxaw ci sa gannaaw yant bi ne ko d'accord naa ci mu tàllal ko loxoom pour jaayanteeg moom waaw moo tax bu dee xam-xam rek waxu nu nga yem ci xam-xam ba mais wutal leer wutal leer ndax euh, lu am solo la ak yaakaar gis nga fan yi yépp ñi ngi soow ah, réew mi dina takk réew mi dina takk réew mi dina takk mais dara xewul xam nga ñaari baqaar ñaari bàqaar yu opposition gouvernement mais dara xewul waaw wala bu dara naree xew benn baat moo koy freiné benn baat bi ku ko daan Si wax allahumma um def na ko fii ci bombardement Dakar bi ndakaaru ubbi yañ fa jot a sànni bato yu ñëwoon pour raser dëkk bi benn yoon allahuma um naa leenu sëriñ Babacar moo leen wàññi te booba tëngéej la ko fekk sama Pape El Hadj a ngi Dakar ñu ni sëñ Babacar dana ñëw walla du ñëw tubaab yi opposé ci mu ñëw Dakar ndax bal ngi tak ben colonel mo ni bàyyi ko mu dugg mën na am bu fa duggé bal yi fay colonel tubaab Samba Bel Hadj Mansour Barak bu mu teddon obi dal na ci ba taal ba mais Ben baat rek la laaj moom Sampa Bel Hadj Mansour dafa wax ni ndax sëñ kër dugg na Dakar ñu ni ko waaw mu ni nañ ma tibbal xali cuuraay ci baraag bi tag dara dootul xew pour won leen ni allahuma um naa leenam jëf fu mu ko waxe jàmm am fa mais dara xewul xam nga dañu dama toog alaaj jóob bu njaasaan yàlla na ko yàlla yërëm ñëw fekk ma ci kër gi ni ma kaay wuyu sa nijaay Seydi Ali Kunta ma fekk Seydi Ali fii ci kër soxna Mariam Kunta Seydi Ali ni ma dégg c'était mu ne ma dégg naa dangeen ngeen parti politique muy le PSS ma ni ko waaw mu ni ma ana Serigne Cheikh ma ne ko dafa dem Dakar mu ne ma parti bi ngeen formé am ngeen ci droit parce que ay citoyen ngeen mu ni ma mais maa ngi leen di ñaan bu leen wax kenn lu ñaaw moom Sidi Ali Kunta mu ne ma bu leen saaga kenn nit mu ni ma xam nga koo saaga ndey bu fayoo yaa saagaloo sa wayjur euh, ñu doonoon ay mag ñoo xam ni boo leen miinee meen seen jataay boo toogeek ñoom fukki minute rek di nga fa jële ci sagesse lu kenn xamul nu mu toll moom si Aliou Kounta la ca la bokkoon alxaaji Abdul Aziz Dabax ca la bokkoon sëriñ Abdul Ahad ca la bokkoon Alaaji Usmaan Kan ca la bokkoon Sëriñ Saaliwu Saar ca la bokkoon Alaaji Santi Seen ca la bokkoon mag moo ci toogal dinga nàmp ci moom sagesse waaw parce que boo fa jógee rek da ngay takkaat sa ngemb mais lim ma wax ni ma bu wax kenn lu ñaaw mu teg ca ni ma est-ce mës nga dégg lamin Gueye saaga kenn ma ne ko déedéet mu ne mu mës nga dégg sangoor saaga kenn ma ne ko déedéet euh, am jëmmu jamono euh, Jean Collin organisé benn meeting à Thiès Senghor ñëw ca meeting ba mais mu jékki-jékki am un mouvement de foule am ku nu jiital ñu ni lan la ñu ni sengoor kii daf la saaga ndey mu ni baal naa ko ñu jiital bëgg a yóbbu ci kaaru police bi mu ni euh, c'est un homme réfléchi parce que dafa wax ni mais il faut pas être bu ni plus royaliste que le roi ñu xam roi la jàppe boppam même wax ni il faut pas être plus singoriste que Singor, parce que c'est un homme réfléchi waaw loolu pour won la te euh, waxante lu ñaaw si avancé wul benn réew avancé wul benn diine itam xam nga yonent bi lu tarkul jawaabi alal Jahil jawaab devant les dérives verbales d'un inculte la meilleure réponse c'est de ne point répondre la yonte yàlla Moussa Samiri yu saaga na traité traité sa mère parce que amul won benen bat bu ñaaw bu ko mën traité mais mu traité ko won ko ni ko sa yaay pauvre la won budul won firaw na nga dé mais pauvreté euh, du khas du euh, billahi bu ngeen ko laajee président Macky Sall wax na ko ma ko lu bëgg gën a jaaxal ci euh, euh, les gouvernants les chefs d'État ma ne ko dafa am ñett yu ngeen di tudd da ngeen di tudd corruption tudd pauvreté euh, tudd prostitution wax ni di ngeen ko fi jële ma ne ko du ngeen ko fi jële parce que ñett yu ànd ak l'humanité wàcc la ba ba àddunay tukki du fi jog la corruption Adama lu ko génne aljana soxna ma ko corrompre à travers un fruit mënu ci dara wa mu consommé ko wa te lele mo am fi wa am mo sel bi rek te bay wa ndeysaan <laughs> góor mënul am mukk fayda ci kanamu jigen mukk حقيتهم يبرتخ يبرتخ بتخنا دم دفني ليش الحاج مالك وخوني بو بنين يوننت ديكون رك غاتشي ام داخ نيم نوي دينونسي مي نانيو فخي با يرات سونو جيكو وا يرات سونو جيكو موسى بن عمران دنج كو ساغا مي فايول يوننت بي واخ نانكو لو راو ساغا mais seyd fayuwul abu Aboubacrine moo ko fayul te yonent bi dafa tiit bi mu déggee seyd Seydina Aboubacrine tontu ki ko saaga parce que foogoon na ni abu Aboubacrine du saaga kenn ndax ni mu yiwe waaye comme yonent bi nag du tontu foog Aboubacrine tontul ko waaw ah, wax ci saaga yonent bi ni ko dinaa la saaga saaga boo xam ni baba àddunay tukki du denc sa xel mu wax ko ne ko yaa wax yonent bi lu ñaaw mu ne ko waaw mu ne ko yew teen boo rombati jàppal ni teen ba mooy li sa ndey wodduwaale jàppal ni baag ba nuy jóow ca teen ba mooy li sa papa ci tubayam waaw ba ba àddunay tukki waaw yonent bi dafa njëkk xàqtaay mais mu tiit taf gémmiñam parce que daf ko bett xamuko won ci Abou Bakr mais wax lu ñaw du avancer rew wa yé yene bu rafet mo koy avancer wa bu ko fait, euh, nañu nañu Nous ba xam ba mi ngi ni ñuy seete ndax mi ngi nuy dégg walla déggunu nañu fexe ba ku nekk mu dendal mu yéene ko yiw ñu seet ko ba xam ban situation la nu yàllay bette waaye boo bëggee ku dend yow gêné la léegi nga dee te sa waxtu dee du jot waaw ko defee ah dañuy wax ni ay jullit la nu waxuma sax ni jullit ci wàllu l'islam. mais kuy kuy euh, kuy croyant dugg nga ci ak diine boo mën a bet bokk mais nga seet luy sellal jikko ci sa biir diine nga def ko parce que ji diine yi ñëw yépp benn bu ci nekk sellal jikko moo tax yàlla indi leen waaw boo nag di ñaan waaw di ñaan euh, euh, ñaan jafewul mais sellal ko pour yàlla dégg la sëñ Cheikh Tidiane si waxtu ma ko ne may ma saafara bu ma sangoo mu ne ma xanaa mokkaloo euh, euh, euh, qul audu bi rabbil falaq ak qul audu bi rabbin naas ma ne ko ah kañ mu ne ëpp newu fi ah falla xeeg naa si falla xeeg naa si ne may ma may saafara mu ne xanaa mokkaloo falla xeeg naa waaw daf may wax ni itam boo taseeg mag mu mu la may galan boo takk boo yoree monnaie rek jox ko te jël galan ba def sa poche bu la joxee fas goo takk boo yoree monnaie jox ko jël fas gi def sa poche bu la joxee sunguf so sango jël def sa poche boo yoree monnaie jox ko muni ma nak mais bul japp mukk ni galan ak sunguf ak fas mën na remplacer yalla yalla dara mënu ko remplacer ba taxna Julit la ci jikko la mais du ci làmmiñ waaw du ci geste geste dana tax geste dana tax yàlla jéggale lu bari jamono bu ne dama koy nettali waaw ah dama nekk ci circulation bi ma gis policier bu arrêté circulation bi te lu tax ndeke dafa am si le jàll mu circulation bi ne geste bi nga def mu ne waaw ma ne ci nit geste geste Il al amalu innama al amalu koy def pour sëlëme ko nit oh c'est c'est c'est archi faux c'est faux li ci sa xol moom la yàllay tenir considération waaw lu lu lu am solo la bu ko defee tabarakallahu ñu sant ñëpp wax dëgg yàlla ñaanal ñi yàlla ñëpp barke mag ñi ak seen leer waaw mag ñi ak seen leer tabarakallahu njaboot yee tax koy gut waaye ñu sant jigéen ñi nag waaw moom daal sëñ Babacar see féete woon ak ñoom la mu féete woon ak ñoom ba ba àddunay tukki du fi jóg waaw te yonent bi jigéen a tax jëluñu bakkanam waaw keroog ba muy dem ma diina bu dul woon ndaw si sëgg mu teg tànkam ci diggu gannaawu ndaw si pour escalader mur ñu jël bakkanam ndax boobu yàlla nee na ko na dem na pour mu sauver ko mais pareegul pour jàppale ko nu muy génne te yàlla bu parewul kenn du ko jàdduloo sunnaam ah yonent bi ni ko nu muy def mu ne ko débrouille-toi seetal noo def ba génn kenn bañ laa gis ah umu ay man moo sëgg mu teg tànkam ci diggu gannaawam pour tëb miir bi parce que buñ ko gisoon rek jël bakkanam te booba yàlla ak seegul pour jàppale ko yàlla dafa mën a <laughs> muñ mag ñi dañuy wax ne muñul parce que dafa xam ni lépp ci kanamam lay teeriwaat waaw waaye it loolu ci cër yàlla defal jigéen ñi la waaw umu ayman uh, ku yéeme la woon waaw moom la yonent bi daan wax ni umu ayman ummi ummi mooy sama ndey gannaaw ba ma gisatul sama ndey mooy sama ndey parce que moo ko yar bu sonnee dana ko xam bu ko xoolee dana xam ni bi dafa sonn bu xiifee bu ko xoolee dana ko xam bu maree bu ko xoolee dana ko xam parce que moo ko yar rekk nekkoon ku ku am solo waaw ku am solo dénoncé euh, euh, yoon si bi eh, Medina ba mu fay dem fekk na fa ay prostituées mais xeexul ak ñoom Seydina Omar mooy leen fa jële après Abu Bakrin jaar na fi ba Seydina Omar dikk ci lay door seet nu ma jëflante ñoom te lu am solo la gis nga jox jigéen cër yal na ko yàlla yërëm président Mamadou Dia dama ko taxoon lool daan na ma recevoir en 1960 ma nekk xale bu tuuti bu ma mësaan am ak moom rendez-vous booba maa ngi Tiwaawan sëñ Cheikh dina téléphoné lu ma juróomi yoon ci semaine bi pour rappeler ma rendez-vous boobu ndax nee na fonk rendez-vous ci la ñuy xam personnalité nit booba dama nekk ndaw rek yàlla xiir ma ci seen biir ma nekk diggante wal joojoog Mamadou Diak Wally c'est c'est notre cousin euh, Mamadou Dia wax ni dana jubbante jigéen ñi dëng waaw demoon na ci ba xale yu jigéen yi bu ñu solee ay mini dafay peinture lu seen tànk yi si mu yàgg nag mu wax sëñ Cheikh ni ko dem une conférence pour dénoncer les femmes prostituées sëñ Cheikh ni ko kenn du weer sa way jur ni ak jikko bu nu a yor ñooy sunu ak rek ne ko waaye bu ma jógoon ni ni ko yàlla mën na ko faj te defu ko waaw bàyyi noonu lu jiitu mu faatu moom Mamadou Dia mu yónnee wax ni dafa bëgg a ñëw seet si ma daf ma soxla fekk sëñ Cheikh daf ma waxoon ni sa aîné politique yi ku la ci soxla demal wuy jikko ma wax président Mamadou Dia ma ne ko bàyyi li ma ñëw euh, bi may dem sëñ Cheikh wax ma ni ma boo demee fexeel ba découragé ko ci politique mu ni ma ndax âge ak santeem ba ma demee moom président Mamadou Dia daf ma nuyu rek euh, اني ما لاج ما سي شيخ دوني انا سي شيخ داف ماي واخ انا ساني واخ ماني كو كوي ساني واخ موني ما سي شيخ لا كو تودي دي موني ما داف ام لوم ما ما سا داف موني ما دما ما سجولي جي جمعه

Euh, ma wax ko sëñ bi mu ne ma demal laaj ko fu mu bëgg ma fekk ko fa ma ñëw wax ko ko mu ni ma li ma ko soxlaa maa war a déplacé wu sëñ Cheikh ni ma demal jëli ko jeudi di heures ma dem jëli ko bi nu ñëwee ma bëgg a génn pour bàyyi leen ñu waxtaan moom président ma ma jëm ni ma dama soxla sedde suñ cheikh ni ma toogal ma toog ñu waxtaan trois heures de temps ma seede leen fas ko denc waaye gis nga looy ñaan rekk yàlla na ci mujj gu rafet bokk waaw ndax yàlla du gedd mukk waaw yàlla du gedd ak loo dëng dëng dëng bëccëg boo ko ne damay ñibbi si mu ni la agsel sang piir la bu ko defee loolu ñu di ci bàyyi xel waaye ñuy sant waa abraar ndax fa tabarakallahu bi ñuy sos daayira bi booba ñun ñi ci daaray alquran ji waaye boobaak léegi it yàlla ngi ciy teg loxoom te sëñ Abdou lu mu tiitaroo taxul woon na sos ko mais def ko boole ci tarbiyaam waaw tarbiya boo ko xasee ba dugg tudd doomu yonent ak doomu wëlu ci yem ku ca duggul doo ca am dara waaw tax ñu def ko ak it fa tabarakallahu ah xam ki ñu ko seqaloon mu di sëñ kër Si waaw allahumma um naa leenam jooju def na ci lu ne wallahi lu ne lu ne def na ko ci mag ñi fekk nañ ko fii billaahi moom moom sëñ Babacar laa wax de ni ko sunu mbay mi ci àll bi yépp janax yàq nañ ko sëñ Babacar ni janax yi dey allahuma um naa leen bàyyi mag ñi toog trois semaines del siwaat ci moom ñu ko sëñ bi dimbale nu ci xetu meddu janax yi ci àll bi mu ne ay ah, yéen xam leen li ngeen bëgg xam leen li ngeen bëgg gis nga maa ngi koy nettali bërki démb koo xam ni jarbaat la ci président Lamine Gueye Maniko ni ko gis nga Lamine Gueye mu ne ko n'a jamais été un ennemi de seigne Babacar Sy ma ko c'était son adversaire en politique Maniko ko te ku ko li la jox tak ma ko gis nga bombardement Dakar yi bi passé Lamine Gueye dafa bëgg dem Paris ñu bloqué ko Dakar mais mu ñëw rue Thiers fekk fa seigne Babacar wax ko ni ko góor gi man maa ngi bëgg dem tugal rek pour affaire u bombardement Dakar yi ñu leeral ko mu ni ko kàccoor yi ubbi luñ ma bunt mais keroog bi ko sëñ Babacar di ñaanal daf ko ñaanal conditionné ñaan ka parce que daf ko ñaanal ba noppi ni ko demal xaar ma sa kër Lamine Gueye werantewul mu jóge Richard dellu këram añ tëdd di sieste ndeke bi muy sieste dafa décroché téléphone am fàtte ko delloo gouverneur général essayé na pour jot ko mënu ko jot mu yónni un garde garde bi ñëw ñu yee ko ni ko gouverneur général nee na mi ngi lay wut mënula jot mu ni dama décroché woon sama téléphone fàtte ko mu solu dempale bi bii Macky Sall nekk fekk gouverneur a ngi yor benn télégramme bi Lamine Gueye ñëwee mu ni ko télégramme bi de autorité française yi ñoo ko yónnee ni même buñ la dee wutal avion militaire nañ la ko wutal dañ la soxla mu ni ko jox ma télégramme bi gouverneur général jox ko Lamine Gueye mu wàcc del ci sëñ Babacar si daf ko jub rek ni ko ah, góor gi sox bi tàkk na mu ni ko waaye nag yaa may wutal ku ma gunge wax ko sëñ Babacar sëñ Babacar ni tekk moom yàgg mu ne ko tee nga ànd ak Thierno Amath Mbengue mu ne ko ndax ndaw la te sawar na ci politique yoonam woowa Thierno Amath la ci àndal ah, pour won la ni ñoom seen ndono Lamine Gueye manuscrit yi mu bindoon yépp te édité ko lu jiitu mu faatu sëñ Cheikh la ko yónnee ni ko ni nga sagale xam-xam këru xam-xam guy wuy ji boromam yow la war a jox ndono alaaji Cheikh Njaay ma béy la mu yoroon ci ay téere yépp ci ay karton la ko def jox ko xaaji tafsir mbooj ni ko demal joxal ma ko sëriñ Cheikh sama doom ne ko doomu soxna yépp moo leen war a donn ndax ni mu sagale xam-xam tafsir mbooj indi tegu nu ci lu mat un mois xaaji Njaay génn àdduna pour won la ni selal du xagn ken cieur wa selal du xagn ken cieur te itam bo bo bo nampé ci mak mu toll ni Cheikh al hajj malik na nga yemale safara ak aljana wa Cheikh al hajj malik mo ni won mawdu du xam mukk sama caalit ci bëgg aljana wala ci ragal safara mom rek moma yété wa taxna bu len nexé ngeen utiliser buntu mbokk ni ko Cheikh El Hadj Malick def ni bu len nexé ngeen ni ya fousier ko mom utiliser buntu tarbiya waaw bu ci nek man na nek bu ko defee tabarakallahu ñi ngi jéggalu serigne Babacar Si Al Khalifa dafa soj ñun itam ñu soñ waaw temps bi la mën na nekk temps bi ñun sunu soj li tax muy metti fokk sedd rax ci waaw fokk sedd rax ci ñaanit tabarakallahu na kaaba gi suturaale jullit yépp yàlla nangul nu sutura boobu barakallahu ndax suma turandoo ba papa ji dafa dem màkk fekk ndeysaan dafa yaay ji dafa teel a faatu dafa fer rekk yaay ji faatu papa ji ni dootul takk beneen soxna parce bëggul ku mettital xale bi ndax li yaayu xale bi daj ci moom yar ko ba xale bi nekk mu kàllaf waaye ñu mel ni ay cousin waaw lu ne dañ koy waxante léeg-léeg xale bi wax ko loo xam ni dangay ngay tiit mais defu ko dara mais papa ji dem màkk ñibbisi ma ni naa jaar gël tàppe pour ndokkeel ko jaar gël tàppe eh, ñu toog di waxtaan xale bi mu kàllaf la wax dëgg yàlla parce que mi ngi am soxna papa ji ni ma xam nga lu ma sa doom ji wax bi ma jógee màkk ma ne ko déedéet mu ne ma daf ma ni bàyyi naa yow dem nga màkk ma ne ko yàlla dogal na ko mu ne ma gis na kàccoor kaaba gis na kàccoor <laughs> <laughs> ma ne ko mais loo ko wax mu ne ma ah lu ma koy wax ma ne ko gis nga bu mu la naqari ma ne ko kaaba yàgg naa gis kàccoor yàlla ko ni bul dénoncé kenn waaye ci gis kàccoor la kaaba dëkk dafay dem di taxaw yëkkati loxo jooy ak yee bilaay kaaba ngi naan bilaay budul woon borom bi ma weer la waaye ndeysaan tabaarakallaahu yal yàlla yokk noo suturaal sëñ Babacar si eh, ñu ngi lay ñaanal lu wér wax naa la léegi ni la yàlla na nga dund cent dix yàlla mën na lu ko ëpp te mu ànd ak wér yàlla bu nu leeru mag ñi um tabaarakallaahu leeru Cheikh El Hadj Malick ak barkeem wallaahi yàlla na ci yàlla jox ba mu ëpp ba dem ci sët yi dem ci sëtaat yi dem ci njaboot yi kenn ku nekk am ci loo jël ci leer yal na ko yàlla def ah ñi ngi ñaan nag moom la c'est le langage du jour mooy kenn ku ne ñu ñaan ko rek mu ànd ak sagoom parce que élection mësul weesu élection ah, campagne électorale mësul weesu campagne électorale waaye lu ci nekk rek te sëñ Cheikh Tidiane si def waxoon ni barino ko saga te buñu limé limee seeni balay mat juróom-ñaar am fu ngeen tase ah, mais do ko xam waaw xam nga passion baxul waaw passion baxul fam lo loo bu uppé rek yaq waaw ah, ñun duñu duñu jox conseil kenn parce que dañoo ragal waaw ah, ragalunu yàlla ma tiim xam na ne ragalunu waaw

mu ni dégg naa suñu kër la ñuy waree wala fa la ñuy tabaske <laughs> ma ne ko met met ma ne ko toi aussi ma ne ko xam nga yow côté politique bi mu ni waaw ma ne ko moom ngay tudd ma ne ko man côté mystique bi ma ne ko bu yàlla ne dinañ fi am 40 ans 40 ans lañ fi am ma ne ko doomu aadama kenn mënu ko emprisonné kenn mënu ko ken ken ken mënu dama tok di waxtaan ak maître waljojo ndjay ci bi mu dëkkee en face hôpital euh, Le dante, un dimanche matin son waay le won don sama cousin sama aîné mais mu ni la révéler un secret d'État moom waljojo mu arrestation seigne Cheikh Tidiane si en 59 ma ne ko mu bu ngeen ci meree sangor togn ko mu ni ma man maa wax Senghor ni ko nanu ko arrêté pour mën a waxtaan ak moom mais Senghor ni je ne suis pas partant mu ni ko je prends la responsabilité parce que c'est mon cousin wal jooju ni ma parce que bu ñu arrêté wul woon seen Cheikh bala mu doon am deux mois dana chuter suñu gouvernement mu ne ma të du moom mooy dem palais toog fa président de la république mu ne ma xam naa ne du fa toogi mukk pour nekk président de la de la république wallahi mu ne ma te ñii ko topp limal ma ci lu mat fukk ñu ko topp bokkoon ci parti bi waaye di ma c'est des voyous comme mu ne ma gënuñu noo bëgg nguur gënuñu noo yeey ci nguur mu ni ma ñu teg Serigne Cheikh ci rëbës ba yaramam sedd ñu délégation bu ko fa fekk négocier ak moom mu ni ma ñu d'accord sur tous les points ñu ni ko génn mu ni déet nag may leen ma ma eggale sama liggéey ci biir prison bi ñu ni ko na rajo bi ñëw nga wax ni yaa fi bàyyi sa bopp mu d'accord ñu jël rajo yóbbu mu def déclaration wax ni d'accord naag ñoom ci ci condition yépp damay àggale nag sama liggéey ci biir prison bi Serigne Abdou dem na fekk ko fa mu waxtaan ak moom mais Serigne Abdou wax na ma ni tur wa seen cheikh doon liggéey ci biir prison ba mu ni ma ba mu àggee miiru prison bi boo ci duutee sa baram dafay mel ni ci ruy nga ko dugal euh, li mu xam ci seen cheikh man xaw ma ko ci seen cheikh سين يبدو من اللي مو خم كي سين شيخ من خم مو كي سين شيخ ما ما بقولهم كي خم واو مي سين شيخ دفع أم نيت نيت تنيو ما ديم بلي كي كي سرين مصطفى سي جميل لن كوي وخ سين شيخ دفع ما في يبال ما اختانك مو كي قد مدينك ما بالله الذي لا إله إلا هو moom sëñ Moustapha Jamil mu ne ma nu la Cheikh tëralale ne mukk Abdoulaye Fafana ancien ministre dafa waxoon ni bis bu may jël soxna na ko sëñ Cheikh may mu ci boppam ndax ma sopp mais comme bi may jël soxna sëñ Cheikh ko Ablaye Fofana yëgu ko bama joge Dakar dem goré mak sama soxna ñu dem fa di dans un restaurant fekk Ablaye Fofana mi ngi and ak Moustapha Niass moom di añ ci restaurant bi ñu doon agné ñun naka la ko nuyu rek mu ma je ne suis pas du tout content mom Ablaye Fofana ma xam yëg ni jël naa soxna te waxuñu ko ko mu ni ma je ne suis pas du tout content ma ni ko je m'incline à tes pieds pour obtenir la grâce mu ni ma cette grâce tu l'as déjà obtenue xëcc ma ñu joxante accolade bi ma ko waxee sëñ Cheikh mu ni ma demal nga seeti Ablaye na ku am ci yow yéene la ma dem seet ko mu ni ma xam nga lu ma lay digal ma ni ko mu ni ma sëñ Cheikh la mag fuuf moo la raw fuuf moo la ëpp expérience fuuf bul waranteeg moom ma denc sam beneen aîné boo xam ni dañu daan daje di waxtaan ci ay baati wolof muy la professeur Cheikh Anta Diop Cheikh Anta dafa daan indi ay baati wolof jox ma may indi ay baati wolof jox ko baatu wolof bi nu mujj wér wax maag moom ma wax ko ko mu ne tekk ba mu yàgg mu ne ma kooku xaw moom mooy lan ci wolof ndax dama ko ne ndax xam nga lan mooy nexer fende nexer fende waaw xam nga nexer fende grand mbubb buñ ko taqaleegul ci suuf mu nekk xar sànni lay doon mais fa ñu koy taqalee mooy nexer fende ma wax ko ko moom Cheikh Cheikh Anta mu ne ma ndax xam nga luy porox ndollu ma ne ko aw kooku moom xam naa ko parce que ñu bare xam nañ ko mais mu ne ma moom Cheikh Anta mu ne ma Pape Malick ma ne ko naam mu ne ma sëñ Cheikh Tidiane si sa lan la

fekk naa ko aéroportu ndakaaru ñu di ko toroxal billaahi booba Senghor a fi ne mi ngi ñàkk tooy xepp euh, salon d'honneur jaaru fa parce que sëñ Cheikh Tidiane si nee na fa gor ñëpp di jaar a baax waaw waxul salon d'honneur de fa gor ñee jaar la wax gor ñëpp parce que dafay tukki ñu yóbbu ko salon d'honneur moom sëñ Cheikh mu ni ma kaay ñu dem doxantu ji ba ca côté bale ñu ñëw ci côté bi nit ñi xëccoo beeg yooyu mu ni ma gori ndakaaru yépp a ngi fi mu ni ma fii la ñuy jaar pour tukki mais Cheikh Anta dañ ko sonnal mu ngi ñàq tooy xeb dama mujj billaahi ñi ko doon pamte pamte ñoom laa doon jàppante man leen bu ngeen defee ni bu ko sengoor déggee def ciy bëgg man leen bu ci bëggee rek ma xam ni du nit man leen Cheikh Anta aéroport Ndakaar rek lañ koy toroxal feneen fu mu dem ñu def ko honneur fu mu dem ci àdduna ñu def ko honneur ndax xam-xamam a tax waaw tabaarakallaahu yàlla na yàlla yokk leeram sama wëllëre la woon ndeysaan lu ne lañ daan waxtaane lu ne lu ne lu ne tabaarakallaahu ah ba tax na ku yebu ñaan jàmm bu la neexee mais ku yebu it euh, euh, euh, ëcc jàmm nga ëcc jàmm waaye itam réew mi leneen xaju fi parce que yàlla li muy nattoo réew yi ci àdduna yépp ngay xëy suba rek dégg benn réew boo xam ne la fa faatu kenn xamul nu mu toll waaw ci lu ne ay barrage yu rëccëg montagne yu daanoog lu ne te sëñ Cheikh billahi dañuy waxtaan booba xam nga ban manifestation xewoon yàgg na mu ni ma ah gis nga bari na ko taxaw ci mbedd mi di saaga te dafa naanul attaaya rek waaw mu ni ma cause réew mi intéressé wu ko ma dafa naanul attaaya waaw mu ni ma attaaya nag ku mu doon safarata ku la dénk réew àdduna tukki waaw ko defee eh, sëñ Babacar si ñu ngi ziyaara lay yokk ziyaara tabaarakallahu di ziyaare ñi fi nekk ñépp ñaan yàlla mu dolli nu sutura dolli nu wér dolli nu xéewal dolli nu barke ci biir ak ci biti mag ñi fi desandi yàlla bàyyi leen fi ba ci kanam waaw ah, tabaarakallahu yokk barke jigéen ñi ci biir ak ci biti ah tabaarakallahu mu sëriñ mii xam nga man bu ma neexoon ma toog at du ma ñëw Tiwaawoon dañu jël suñu kàddu ñun ñëpp dénk ko ko xam nga lu ñu jik lu ñu jik ñun ñee ñëpp say say saye ñu jik xam nga luy say mooy lan say kenn mënu koo damm waaye bu ñu ko tasee rekk xer boo ca jël booba see mu damm bu ñu àndul rekk àdduna tukki waaw bu ñu nekkul say àdduna tukki te yàlla yoonam nekkul ci ki koy ñaan moom jaamam la bañ a tas yaakaaram xam nga Cheikh El malik dafa dem Jolof yoon wam fa mujj fekk Alburi moom Maodo ñu informé Alburi ni ko Malick Fawade ngi ci suufa si Jolof si boobu Malick ya fa nekkoon ku ne dafa am nuñ lay xàmmee waaye ñu ni ko Malick Fawade ñu xam ni Cheikh El Hadj Malick la ñu ne ko mi ngi ci suufas jolof si de fekk alburé ngi soonu mu jóg toog mu ni Malick Fava da nga ci suufas jolof ñu ni waaw mu ne sama soxla faju na ñu ni ko lu tax mu ni lu ma ñaanal yàlla dana ma ko nangul te duma laaj weexal waaw waaye njuumte ba mu def mooy sëriñ sa ko daan ñaanal dañu nekkoon ca mbooloo ma ba fa serigne sa joge lañu dem gise ni nañu fexe ba mu baña a ak mawdo Cheikh alhaj malik doxna yitem ba mu jeex ci Jolof batay Alburi jotul ci mom pour won le yàlla mom baña tassi akaru yaakaaru te boba Cheikh alhaj malik tabarakallah ni mu tele mate ci ak ndaw waaw tele a mat rekk moom daal lu dul yàlla waxu ca dara waaw moom moo toog woo ñi mu am ñépp ni leen ku ci waatul ma dogoog yëpp wax leen lu ngeen xam ci man ci safaan ñi may yar ci biir rekk ñi ci biti laa wax moom Maodo mais njaboot yi ko yàlla jox doomam yi kenn ku ci nekk mën nga àtte àdduna mais gëmewoo ko gëme woo Cheikh El Hadj Malick te kenn ku ne ci doom yi mu am mën nga yilif téméri aduna loolu la ko yàlla defal ko defé barke yonent bek leeram yàlla na gam yi di wéy ba ca kanama kanam kanama kanam yonent bi mérité na lu ko ëpp yàlla tass na ci barke ñi nu yaakaar

quand on cherche la perfection on est obligé de laisser tomber là. Vous waaw wut la perfection gis nga yonent bi eh, il s'est hissé au-dessus de la perfection te yàlla ci perfection rekk la de yemloo mais le prophète Mahomet s'est hissé au-dessus de la perfection pour obtenir wa innaka la ala xuluqin azim waaw ko ko may fu nit ñi yem daf ko jéggi te yàlla du war kenn waaw ah. bu ko keneen defoon nit mu wax ko mais bi rekk ko def kon yal yàlla taas na ci barkeem taas na ci leeram ah tabaarakallaahu bégg na nu xalifa ñaan nga jotal nu waaw simali waaw waaw ah تبارك الله سبب دي نكو دينكون سيدي عبد العزيز مو واخون ني سما تتا تيتا تيتا اك موم واخ مو لا نين بايو كو خيل بايو كو تبارك الله ا موم دي بري نا ني ني ني دي ا نيو نا ني ييغو تبارك الله daal bari na ñuy yëngu mais en toute chose en toute chose il faut miser sur le résultat final en toute chose yàlla baax na ah dafa am góor gu fi nekkoon de fii ci salle bi ñu di ko wax sëñ Babacar Si mu téye microphone ci micro la wax de mu ne xaw ma ba jamono waaye jamono bii fal ak folle ci sama loxo la ko yàlla teg sëñ ne xaw ma ban jamono waaye jamono bii fal ak ci sama loxo la ko yàlla teg daan wax dara rek nga nga waaru waaw nga waaru Seex El Hadj fi jóge ku ne ni yaay doon Maodo ñu naan ko kee la mag kii nangam kii si la sant te moo la mag kii moo la fiat mu waat yàlla ne bi lay la di laa ilaha illa yitteel fii mooy doom yi Maodo am ñoom lay bañ ñu am soxla bu fajowul moom sëñ Babacar mu ni ñoom rekk ma yitteel waaye doon na Maodo ak sol manto talooguma ko waaw bu ma ko talee wax ko mag ñi ko doon wax de kenn ci yéen dootul tal boppam waaw moom protéger njabootu Cheikh El Hadj moo nekkoon bakkanam waaw muqaddam bu leen tooñ sax mu dogoog muqaddam du laaj yaa tooñ du laaj dara moom daal kii njabootu Cheikh El Hadj tooñ nga ko mu dogook yow boo waxee ne ah li Maodo def ci yow waroon nga muñal sax gannaaram waxuma laat nag euh, koo xam ni euh, njabootam la waaw indi barakallahu loolu <laughs> euh, dañu amoon bàyyi bu féex moo tax gis nga ñun lu ñu <laughs> waxuma tiitaru mais ñu sagu sagoo sagoo bëgg lu baax bëgg lu lu lu jafe euh, sëñ Babacar si dafa daan wax ni seen bay amat si ku bëggoon lu lu lu la di jënd lu cher at mi ma njëkkee jënd fii ci Tivaouane dinaa awma vingt ans benn sous ma jënd ko ci six mille francs à l'époque mag ñi daan toog ci buntu jàkka ji xaw nañ maa rendi sama nijaayu bopp ja ah, góor gi Alsaan Mbay mu ne ah waay waay gone daal gone rek lay doon waaw xam nga ni kii sous bi mu jëndee six mille francs ñaari saaku ceeb la waaye loolu dañ la ciy yar dañ la ciy yar tabaarakallaahu yal yàlla dolli jàmm ah mag ñi xam nañu suñu bëgg-bëgg xam nañu ko waaw bu baax a baax a baax te wallahi wal quraanil azim ci timis la ma soxna ami xalifa woo soxna amin tësi bu sëñ Babacar Si li ma dem bëgg nga def ñaan ci réew mi ma ne ko incha allah ko li dara xewul amul ku membre ci opposition bi ku mu mënul la waxal amul amul ci parce que ñom ñëpp sama samay samay copain lañ ñom ñëpp la wax opposition bi ñom ñëpp billahi samay copain lañu samay wóllëre lañu mais Macky est mon leader loolu la duma ma duma duma ma du ma xuloo kenn mais ñom ñep samay wëllëre lañu ah Idrissa c'est notre neveu Idrissa Seck c'est notre neveu Aïssata Tal Sall c'est ma cousine Aïda Mbodj nan la koy woyé parce qu'elle se nomme Aïda maman règle la koy woyé parce que ma mère s'appelle Aïda day ñëw sama kër dañuy téléphonante tout le temps moom ay dëmboj tout le temps dañuy téléphonante amul gàmm guy ñëw gummadul ñëw loolu euh, grand ensemble waaw loolu nekk suñu diggante bon am na ci ñoo xam ne xëy na mësuma jël contact ak ñoom mais yéenewuma leen safaan ah leen safaan parce itam nag boo nee xaw ma nan la ko wolof yi waxe doo mënoo kenn ku ne nga satisfaire ko waaw kenn ku ne nga satisfaire ko ah loolu barki démb biñ ma wooyee di ma laaj sa carte fan ngay wootee ma ne def leen ko ci waawul là où je suis né waaw suma alxacheikh Eh, Seydi Ali Kunte mooma daan wax <laughs> ni ma mais eh, Zeynabou et Cheikh Tidiane rek ñoo nekk Saint-Louisienne mais vous vous êtes des Kayoriens <laughs> ma ko Kayorien biir la yu ay tabarakallahu coow li bari na lool lool lool <coughs> ah, coow li bari na waaye rek ci jàmm lay mujj waaw insha taala

gàkku ñëw na sama kër nee na ma daf ma daan def plaisir ñu may wooye Pape Malick waaw itam waxtaan nañu waxtaan nañu Amad Lamine Diallo Mamadou Lamine jàlloo bi mu njëkkee formé parti man la njëkk a seet ànd ak Maguette Sow waaw Maguette Madoune Sow ñëw wax ma ni mu tërale yëpp ma ni d'accord parce que sëñ Cheikh moo ma ne woon bul rejeté kenn waaw mu ne ma koo ci gis te mu am idée yu valable waxtaanal ak moom ci loolu la nekk yàlla xam na ko ko defee maa ngi souhaité nag à tout le monde yàlla musal leen ah ñoom ñépp nag ñoom ñépp ñépp ñépp ñépp yàlla musal leen waaye moo leader c'est Macky Sall loolu dama len koy wax ngeen dégg ko waaw len leen koy wax ngeen dégg ko carte carte carte électeur kenn ku ne yaa moom sa carte waaw kenn ku ne yaa moom sa carte mais passé nañu fu ñuy demander aux disciples de de choisir kooku passé nañu ko waaw passé nañu ko moom daal eh, yal na yàlla bette nu jàmm ci biir ak ci biti ñaan loolu moom kaamil yi bari na la kurus yi bari na waaye yépp yaakaar a tax kon nag yàlla bu yàlla tas yaakaar yaakaar ji mooy lan mooy jàmm am waaw mooy jàmm am yàlla na ko yàlla defal sëriñ bi ñu ngi lay siyaara di la massawu coono waxoon nga ma ni quinze minutes rek nga fiy def waaye ñeewante njabootu tax nga toog fi ba léegi waaw boo ni woon yaa ngi dem mais nañ fi toog ba gannaaw ëllëg ci waxtu yi ñu toog waaw gannaaw ëllëg ci waxtu yi ñu toog itam euh, euh, obéir la mooy sunu mission waaw notre mission tabarakallahu sa njaboot gu jigéen gi ñëw nañu ñu nga ca jigéen ña ñi nga wax nuyul nu suñu maam sëriñ bay te ziyaaral nu ko <laughs> ñoom daal loo ñu ngi ci gannaaw ah loo wax rek ñu ne sunu maam sunu maam sunu maam ma ne ma ne yéen daal dama defe ni am na seen beneen maam bu fa nekk bu ngeen ragal moo tax plongé wu leen waaw ñu ne ah déet déet déet ma ni déet dafa mel ni dañu ragal soxna ay dina ba waaw wala nga génn waaw moom la def waaw da ngay sël moo daakaande waaw <laughs> جزاكم الله أنا خيرا يعني